asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar di leen baal àq te di leen baalu àq mbooloo mi fi teew yëpp bés bi ñu nekk nii bés la bu bu am importance ci li nga xam ne dañ koo dëgmal depuis ay weer nekk ci benn dynamique boo xam ne wax dëgg yàlla nekk ay nit yu engagé ci li ñuy def depuis très longtemps tey nag bu nekk bés boo xam ne. Euh, lu ñu bëggoon la yàgg ko def nekk ci benn lancement bu am importance bu am impact mais comme ni ñu ko waxee rek euh, des personnes engagées lépp lu ñuy def ci àddina rek dafa am ci ci lu ñuy tënku mooy lii bi ñu ko waree def bokkoon na suñ suñu ay premiers pas yi nga xam ne moom la ñu waroon exécuter mais comme que nag dañu ànd ak suñu ay kilifa ànd ak ay mag yu ñuy dooleel ànd ak ay experts yoo xam ne ci wàllu sport lu ñu la wax rek jàpp ko comme téere demuñu rek demuñu rek ak suñu xelu bopp dans toute chose rek lépp lu ñuy def rek dañ ciy communiquer ak suñu ay mag ak suñu ay kilifa bu ñu waree teggi tànk ñu teggi tànk bu ñu waree avancer ñu avancer bu ñu waree yokk ñu yokk suñu tekk tekkaaral bi nga xam ne depuis très longtemps nag ñu ngi ne tekk parce que trop de communication tue la communication ba nga xam ne mooy waraloon suñu tekk tekkaaral mais yi ñu def nii muy conférence de presse bi bokkoon na suñu ay premier acte mais amoon na lu ko alayant ba nga xam ne moo taxoon ñu tënk ci lool di leen xamal ni rek euh, tey bokk na ci bés yi nga xam ne moo ñuy mooy nekk bés yi gën a bés yi gën a jëmmal ci liñ jëm nii bokk ko suñu ay euh, suñu ay grand suñu ay mag suñu ay frère li fi waroon teew ci mbooloo kenn xamul lu mu toll képp ko xam ne tey làmb làmb bu njëkk ba ak làmb tey am na différence am na différence trop comme football bu njëkk ba ak football léegi parce que période yi du benn temps yi du benn te làmb c'est sport de chez ci àddina bi lutte avec frappe fii rek la te xam nañ ni. làmb ba woon ak léegi du benn kon boog làmb mënul di avancer te système bi fi nekk mën a taxaw rek ci benn ci benn niveau boo xam ne du avancer mooy tey tey dans tout sport au monde sport yi ngay gis yëpp ci àddina bi les acteurs yi nga xam ne tey ñoo ci nekkoon parce que ki nga xam ne dafa nekkoon tey ci sport pratique ko daj ci ay coono vécu bi dafa bokkul un Moustapha mënul yem ki nga xam ne théoriquement lay wax ci lay wax ci ba làmb naan defoon naa ni te kii def ci nekkoon dund ko pendant des am ci expérience am ci vécu kooku tey non mënoo jékki-jékki li nga xam ne moo ŋànk làmb tey làmb ñu ne tey g ñu ne quatorze personnes la ou treize personnes nga ne tey Oumou Moustapha fa la nekkoon ah ca biir la nekkoon nekkoon seen conseiller bokk fa mais tey temps bi jox nañu raison parce que tey suñu parce que tey suñu grand la xam ni am na système boo xam ne mi ngi fii depuis 1994 di évoluer ci benn système boo xam ne tey c'est illégal mais pourquoi on pourquoi bu ñuy wax ay ay ay élire président wala affaire yooyu ne ko tu as tu as le droit de fair deux mandats après nga quitter keneen ñëw parce que vision yi du benn engagement yi du benn on est quatorze millions et quelques personne ñoo xam ne tey làmb avancé ci kanam rek moo leen yitteel est-ce que c'est normal est-ce que mu jaadu na benn nit un médecin war fi nekk vingt-quatre ans toog fii ne moom ne moom moom moo xam lépp moo mën lépp moom ak ay collaborateur am ñoom rek ñoo fi war a nekk ñun ñi nga xam ne on est des lutteurs pratiquants dama doon dans tout sport au monde les pratiquants dañuy nekk ci biir seet ko ci football seet ko ci basket seet ko ci athlétisme seet ko ci lépp nga xool les anciens ndax gars yi impliqué la woon ci biir ñun li ñu njëkk lu ñu njëkk a mooy nous les pratiquants tey mbër retraite ñu ne la quarante cinq ans boo paree ñu multiplier la par zéro virgule cinq pour cent yow moom sa existence jeex na quarante cinq ans pare nga balaa nga koy xam nga bañ a waajal sa bopp ba nga xam ne tey kenn bu la ku la gis du la yërëm parce que fii am na su ay suñu ay papa yoo xam ne autant dañu doon touché ay millions tey souffrance moo leen rey souffrance ak ñàkk taxaw tey bu làmb organiser woon comme il faut tey souffrance souffrance boobu am na fi suñu ay mbokku mbër yoo xam ne ñoo bokk génération comme le cas de kajoor di kan moo koy dee première dame moo koy dee au nom de quoi parce que tey ñi ñuy jiite tey bu ñu organiser woon comme il faut problème bu ñu am mun mun nañ ko war a régler suñu bopp les retraités kan moo fi nekk kan moo fi liggéey parce que làmb dafa gàtt suñu doole li làmb kenn choisiruñu ko ñoo ko choisir suñu bopp parce que fii benn mbër juddu fi sa papa wala sa yaay nekk milliarde wala millionnaire ngay futteeku ci làmb ji dóorante fii ku fi nekk waajur wu baax nga am mu yar la ci ñu mu mu yar la ci lislaam jàngal la alxuraan jàngal sa diine mais làmb dafa nekk foofu góor yàlla nattuñu ko ñu dugg ci pour lan dimbalu suñu bopp dimbali suñu ay waajur ku fi juddu woon tey fekk sa papa nekk milliardaire doo bëre ñun ñii mbër yi quatre-vingt-dix pour cent des lutteurs amul kenn ku ci bëgg nekk sa doom nekk ëllëg mbër parce que métier la boo xam ne bu doy waar la bu bëri ay danger bu bëri coona boo xam ne tey tey li nga enduré bëggoo sa doom enduré ko daj ko ay coono kon dans ce cas li ñuy li ñuy réclamer di ko ñaxtu di ko kaas mooy dañu bëgg changement structure bi fi nekk dañ koy gisul suñu bopp te xam ne fii jëm làmb tey fi les lutteurs tey malgré que sax y a gos yoo xam ne sax ñuy dugg nañ ci làmb ji sax pour avancer la lutte gars yi ñu ngi wax di ñu expliquer système PPV mbër da nga mbër mu ñu fay cent millions Sénégal yëpp yaakaar nii 100 millions c'est de l'argent xaalis la mais quelqu'un qui prépare un combat ci benn un an ak système bi ñu teg dañu ne système bi fi nekk dañu ne ba ne système bi nga xam ne tey mbër yi sax dañu am problème 90 pour cent des lutteurs dañuy bëri am problème jot seen xaalis mbër yi dama ne la làmb ji tey ren làmb ji ñu génn 90 pour cent des lutteurs bu la promoteur yore lu treize millions yore wala yore na la douze millions yore na la vingt millions maanaam parce que lan la structure bi fi nekk protégé wu ñu mbëri hmm? parce que c'est mal organiser parce que tey sanction yi ñuy teg moo tax mbër yu bëri accepté avec les promoteurs pour tey tey bu ñu jëlee sa cachet tey tey imagine toi buñ ñu la imagine toi somme globale quatre vingt million bu ñu ko jëlee tey euh, yóbbu ko CNG déclaré ko bu ñu la daggee benn dix pour cent wala quinze pour cent ci quatre-vingts millions dis-toi que ne yow moom pare nga c'est pour cela que mbër yi avec la coopération des promoteurs ñuy accepter tey Gris Bordeaux bu signé benn combat wu quatre-vingts millions avec un promoteur mu nangu promoteur bi tey déclaré trente million avance vingt cinq millions reliquat ba vingt cinq millions wala trente millions tey dina permettre tey sanction bi buy ñëw du lourd te ci loolu la ñuy focaliser wu ba tey te loolu mënu ñàkk yooyu mel noonu bokk na ci li nga xam ne tey euh, bokk na ci li nga xam ne moo ñu moo ñu moo ñu yóbbu ci lancé bi tey dañuy wax ci ay licence on parle de licence licence tey les lutteurs son plus de sept mille et quelques xaw ma huit mille yow tey mënoon na asalaamaaleykum un lutteur day ay mbër yoo xam ne sax bu saison bu ubbee tu vois des lutteurs yu jóge ci àll bi sax di fanaan stade stade de l'amitié au nom de quoi parce que y a des yoo xam ne ñi nga jiite boo koy doxal ak ñoom rek amoo respect ci ñoom ci ban ci con ci ban concept la ñuy jël mbër bi nga xam ne tey day ñëw jugi village pour fanaan pour fanaan euh, stade de l'amitié Léopold pour nga fëggal ubbil ko buntu bi huit heures pour ci au nom de système boobu mooy lan daawaati géej daaw yi fi am yëpp mooy lan dañu teg benn système man affaire bi ça me faisait rire ah, man bi ma ko déggee dama ay reetaan la ma def système mooy lan dañuy bàyyi ñuy ñuy def ñu ñuy def yoo xam ne je me suis dit que jekki joxe benn dat favorable na bés tàngam mbër mu ñëwul dootoo amati licence mbër yi ràññee esat de l'amitié ba ko ba ca taliba ba ca mixta pour licence pour licence licence bëre dóor dix mille francs les lutteurs sont huit mille et quelques ñu ràññ bu ñu ràññee boo boo leen rombee da naan fii lan moo fi xew kenn xamul stade amitié kenn mel ni Sénégal 92 nit ñi rang nit ñi rang rang rang rang rang maximum journée bi ñuy lekk fa benn cinquante millions ou parce que sax benn nit dix mille francs bi jeex ñu ne date limite ba sàngam ku fi ñëwatul lu kii ñu jékki-jékki ne am nañ prolongation prolongé nañ date bi. gars yi dawaat ñëw. gars yi bi ñëw jékki-jékki parfois ñu may woon ma maire yow doo dem mais léegi date bi jeex ma leen mais yéen. mu comprendre parce que yooyu mooy mooy ñàkk mooy ñàkk a parce que nit bu nekkee da nga koy jiite sa doom bi nga xam ne da ko jur ci farata yàlla sunu Muhammad bis boo ko parce que respect dafa baax ci nit boo nekkee kilifaam te y a des yoo xam ne moo indi suñu engagement bi ñu engagé wu. parce que trop c'est trop 24 ans c'est pas deux jours il y a de président yoo xam ne dañ fi ñëw 24 ans dafa yàgg ñu jàpp ñu. ñu téy ñu ci lu téy ñu ci loo xam ne tey amul benn autorité amoo benn kilifa tey amul kenn koo xam ne tey boo toogoon ak moom benn deux minutes nga briefing ko ci système bi nga xam ne moo fi nekk depuis 94 te du la jox dëgg parce que au début commencement wu suñu suñu bi bii c'était très chaud fa ama àndoon ak arñi àndoon àndoon ak arrogance parce que loolu foofu la tolloon mais bi ñuy commencé opinion publique bi jox ñu nopp ñuy ñuy décortiquer di wax ak ñoom quatre-vingt-dix pour cent Sénégal dañuy jox raison parce que nit ñu dofuñu ñun amuñoo problème ak Alioune Sarr amuñoo problème ak Demba xam nga lu benn problème la ñu am dañu bëgg changement système bi fi nekk dañ bëgg mu jóge fii ñeneen ñëw. loolu lañ bëgg yaa rien loolu lañ bëgg te on libre dans on dans un pays de droit. Macky Sall du def deux mandats la wax lay def mën nag mënul bu ko defee bu paree daf ñuy abal keneen ñëw moom est-ce que moo gën est-ce que moo gën a moo gën a ay sénégalais yëpp non Obama ba léegi américains yi ñu ngi koy jooy mais malgré que mu bu na dégg naa ci discours am mu ne bu mu ne bu defoon bu bu déposé woon candidat gars yi falaat ko mais nee na bëggul parce que xam lu tax am na ñeneen ñu am yeneen idée Donc on va démarrer. Communiqué de presse. La lutte sénégalaise est un sport particulier, une activité traditionnelle bien ancrée dans nos réalités. Ce sport pratiqué dans tout le territoire national a un aspect sportif, mais aussi culturel et de loisirs. donc euh, mooy am nañ ay perspectives yu ñu jëm objectif bi marche la déposer suñu déclaration de marche ak tournée bi un tournant décisif le CNG le comité national de gestion de la lutte donc mooy am nañ ay perspectives yu ñu jëm objectif bi marche la ak déposer suñu déclaration de marche ak tournée bi ñu war a def dans les quatorze régions en premier temps mais ci compétence élargie cette structure doit être démocratique, c'est-à-dire impliquer tous les acteurs de la lutte. Elle doit aussi comprendre des personnes ressources. Il ne s'agit pas d'une fédération copie de la fédération de football ou de basketball. Ces pratiques sportives n'ont pas la particularité de la lutte qui doit avoir une structure spécifique adaptée à ces réalités. Il faut donc déterminer les acteurs éligibles déjà commis. Le CNG de lutte, c'est-à-dire l'équipe dirigeante, doit céder sa place à une nouvelle structure. Le CNG est un démembrement de l'État qui agit donc au nom du peuple. Cette structure a le droit de rendre compte à l'autorité qui l'a investie, à savoir le ministère des Sports. elle a l'obligation de rendre compte de sa gestion aux acteurs pour lesquels elle a été investie, les lutteurs. Depuis 1994 à nos jours, le CNG gère des finances et en aucun moment il de compte rendu ni un éclairage sur la gestion des deniers publics. Il est temps qu'un audit financier et comptable de la gestion du CNG soit fait par les organes de contrôle compétents.